jërëjëf El Hadj Ndiaga maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu euh, seen bu mag boobu boobule di Ovision nga xam ni euh, ku koy yërndu yaa nga cay gis ay njariñ yu jéggi dayoo ñu ngi ñaan euh, yàlla na dem ba nekk ay télévision yu mag a mag a mag ci daraja yi borom guddi gi daraja yi borom bis bi daraja yi ki nga xam ni moom at mi te mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam El Hadj Ndiaga jërëjëf Maodo radiyallahu anhu yàlla yàlla fayal nu ko dafa vérifier dundu xeet wi moom Seydil Hadji ndax yonent bi alayhi salatu wasalaam mo waxon ni al ulama warathatul anbiya muni borom xam-xam yi ñoo fi wutu yonent yi imam Shafii radhiyallahu anhu wax ni borom xam-xam yi jëfëndiko seen xam-xam muni buñu nekkul wëliyu yàlla amul wëliyu in lam yakun al ulama al amilin awliya allah muni fa laysa lillahi waliyun mawdo xamni amna ñuko top ko topp mu Seydi El Hadji ndax missionnaire la jangale du def jàngale sax ci sunna waaye bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu jeex Seydi El Hadji Malick radiyallahu anhu xam ni dund na dund xeet wi Sénégal vérifié na li ñoo dundee ñun biir réew mi mu xam ni lenn rek moo nu mën a sauver muy bëgg Seydina Muhammad bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam moo nu mën a dimbali ndax yàlla bu fekk mën nga ni tagg yonent bi ki ko njëkki mooy borom bi subhanahu wa taala ndax yàlla moo ni man yàlla maak sama malaaka yi ñu ngi julli ci moom te duñu sëlmal inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi door a wax ni yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ca la Seydil Hadji Malick wax ni kilifa ku toll nii nga xam ni mu di yonent boo xam ni fii yaa ngi toog ci jotaayam yaa gën a tedd ku dul yow yaa ngi toog ci jotaayam yaa ëpp sécurité ku yow fiek yang koy bëgg ya upp sécurité kudul yow moom yonent bi alayhi salatu wa ci la mawdu ni ñëw leen. ala azimu laylal wilaadati hisbatan idha lam yakun naxwa alxaraami udulu xam nga ala ala jagafal bu lako mak waxe lamay wax ñor nako bo jange gramir arab ala harfu tanbih li tasqii saamiin dafay xerawloog way déglu ñi mën a góor ala wawe ñu ne ha muni azimu magal leen. laylal wilaadati guddik juddug yaronte bi alayhi salatu wasalaam mu hisbatan ngir sakku yu denga kon comportement ki wara a déparé wala kërëm wara ñew fi comportement bi nga wara am denga hisbatan ngir sakku si yu mudi guddi go xamni bo ñew fi ci Tiwaawoon jang alquranul karim mudi di xamni tag yaronte bi alayhi salatu wasalaam sol lu set sol lu rafet di magal yaronte bi ko la ni jak xol sa kanam billi xisbatan ngir sàkku yiw waxtu julli jotee nga dem julli ji boo dee taalibe cheikh ñëw bu bu wasifa mbaa laazim jotee mbaa xadara nga dem teewi ji ko xisbatan ngir sàkku yiw war a góor gi ni ida lam yakun naxawal xaraami udulu foofu nag dégagé na responsabilité am ndax soo wootee ñu laaj la Mawar dafa woote dara Seydil Hadji Malick wax ni ida lam yakun naxawal xaraami udulu ndéem jéngu leen jëm ci lu xaraam dégg kon ala njaga ca ngay dégg ni ku jeng jël jëm ci lu xaraam Seydil Hadji Malick woowu la kon mu di guddi goo xam ni moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog ca la jamono puuk réew alxaaji Mouhamadul Mansour radiyallahu anhu keroog moom loolu la waxoon ni keroog la ko wax ni ko bi mawlidika dunyee zëhët wa tazayyanat wa daanat li arbaabil uqul amaniya mu ni Seydina Mouhamed alxaaji Mansour dañuy adduniya adduna adduna zëhët puuk réew na wa tazayyana te taaroo moom àdduna mu joxoñ Seydina Muhammad ne ko bi mawlidika ci sa juddu gi yow rasulullah ki dégg nga wax bi nee na àddina puukariwu na mooy àdduna ma ngay tiitaru waaw àddina taaram yokk na waaw lu tax àdduna yi puukariwu lu tax àdduna taaram yokk mu di keroog ba Seydina Muhammad juddoo waaye wa daana daal di jegeñ nag li arbaabil oquli ñeel borom xel yi al amaaniya ñi di ñun wóolu xaj njaga keroog kenn ku ci ne yëg na ni am na lu xew xam nga lu xew muy dikkug rasulullah gi keroog la pare pare Kisra toj keroog la xërëm ya toj saawa tey jaamu dox diiran mille ans junni at Faris di jaamu tàkk-tàkk diir diiru junni at Kisra nañu ñoo yilif àdduna bi keroog la xërëm ya toj bu sayri ni wa baata iwaanu Kisra وهو منصدع كشمل أصحاب الكسرى غير متئم والنار خامرة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساع العين من سدم وساء ساوة أن غادر بحيرتها ورد واردها بالغيس حين ضم كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم حج غفال keroog juddu gi yonent عليه الصلاة والسلام wasalaam nga xam بكل ويرو بكل mbég la weeroo mbég la bés ba mbég la kon nu ngi ñaan nañu ko waxtaanee ñu ko mënul waxtaanee nañu bind ñi mënul bind nañu julli ci moom ñu ko mënul nañu génn seen alal dépensé ca ngir guddi màggal guddik judduk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ala jaga faal maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp yàlla ngeen am jàmm réew mi am jàmm bu déwén nag jàmm